nga xamante ne bàyyi nañ leen xel ci période parrainage yi ni mu ko waxee Passeman ma nuyu la waaw ma fay la Ndeye Aram euh, di nuyu suñuy bàyyi xel bu baax euh, di safo digi penc moo xam euh, ñu ngi ci réew mi moo xam également ñu ngi ci bitim léew nuyu aussi ñi ñu koy seqal saasu su ne mhm. fi nga daanale foofu la ñuy taxaw également jaale njabootu Euh, sëñ Mame Ousmane mu ngook euh, ci kilifa gi fi wàññeeku sànq te ñu dégg ko yaa ngi wax aussi Modou saay man nii laa ko doon déggee rek c'est vrai que ne nekkul ku ma xam ci Pape Moussa laa njëkk déggee turam. Mhm. Cheikh Oumar Talla également. Euh, ma xamee ko woon nii rek comme ni ko Sénégal yi di xam. mu nouvelle bu métti ci bi ñu ko yëgee ni na àddina waaye loolu mooy dëgg aussi li kilifa gi waxoon rek mu ne. dee mooy waaraate bu mag bi mm-hmm. ne euh, euh, ñëpp dinañ ci jaar donc euh, ñu ngi jaale njaboot yi nga xamante ne jamono ci ñoom ñoo koy gën a yëg ci kilifa yooyu wàññeeku ñaan yàlla it ñu dajeeg yërmande yërmande ñi fa jiitu it également ñu ñaan aussi yàlla xaare leen aljana te jégal leen seen bàkkaar te ñaanal it ñi fi ne yàlla may leen gudd fan bu ànd ak wér donc aram ci loolu lañuy ñuy ubbee jërëjëf Pape ñuy ñëw ci actualité bi Cheikh ma ziar naa la maa lay ziar moom laa fekk c'est toujours en plaisir surtout sans sans limite moom suma suma kër la c'est mm-hmm. toujours un plaisir beneen bi euh, di jaale la uma islamique jaale famille euh, Tidiane yëpp mais rawatina famille maam Abdou ndax maam Abdou moom ñëpp xam ne taxawaayam ak rôlam rawatina lu lu meññee ci moom euh, maam Ousmane xaw ma ko directement mais dama doon gis xale yi niñ ko toppee ak niñ ko joxee nopp mm-hmm. ba nga xamante ni doon na def liggéey bu am solo ci ci ci ci wàllu diine weeru koor nag mu génn ci weeru koor yàlla na ko yàlla xaaree àjjana tas ko ci barke baayam beneen bi muy suma suma suma suma mag suma xarit Mamadou Yatasaay parce que yàggul sax doon naa ko boole ak waa sans sans limite euh, doomam aussi nekk ndaw nekk suma xarit muy Cheikh Yatasaay mm-hmm. ak euh, goroom Ibrahima Khalid Diène ah ñoom Boga Mbaye ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom euh, bu bi mu engagé woo ci politique daf may woo laaj ma suma xalaat parce que xeebul suma xalaat et nekk nit ku baax aussi et sur le plan social koo xamante ni au delà de entreprise yi nga xam ne am na ko ku doon dimbaliwaate koo xam ne da doon taxawaay nit yu bëri. Mm. donc euh, ma euh, nouvelle la boo xam ne nouvelle bu bu bu bu ma bu ma bett la aussi mais sant yàlla rek comme passement wax. euh, on ferme, le vivant ferme les yeux du mort, tandis que le mort ouvre les yeux du, vivant. yàlla ko yàlla xaare àjjana et puis di di di jaale particulièrement doomam tey Cheikh parce xaritam la te doomam la mais mu góorgóorlu rek xam ni que euh, baayam am na lu mu liggéey am na lu mu ko bàyyil nag ko gën a ñoŋal te di yaakaar ni yéen bi lu mu diis diis yàlla dina ko ci taxaw xam naa du ñàkk ñu egg fa ngir mën leen jaale mais mën nañu wax ni ku bëggoon réewam la mun nañ wax ni ku ku gëmoon boppam la et que na ndaw parce que euh, nekk juddoo Sénégal dernier prix bi mu mujjee jot daf ma woo ne ma jot naa benn prix euh, en tant que maire investisseur de de l' Afrique de l'Ouest euh, au delà du Sénégal am na ay investissement yam doon def ak des créations d' emploi donc amaloon njëriñ société bi dem na aussi ma koy jaale di mastawu njabootam. jërëjëf jërëjëf Cheikh ci témoignage yi am na solo Abbas nuyu naa la. toog ci biir plateau bi. Mhm. rawatina kilifa Cheikh Oumar euh, yow mi ajaaram rawatina Pape Ousmane suma nijaay doonte yegg seegul donc euh, xibaar bi moom tiis lañ ko ubbee donc mënuñu lu muy ñu yëkkati kàddu njaal jébbal ko xalif général kullu tijaan ndaxte tiis bi ci kawam la dal ndaxte moom mooy tey. Euh, maam Abdou moom mooy kilifa diine yëpp yi nga xam ne ñu ngi yeewoo ci Tiwaawan donc ñu di ko beral euh, cant di ko beral nuyo di ko beral tamit euh, ne ko sigil ndigaale ci turu umma islamique bi yëpp. ndaxte tiis bi nga xam ne moo dal tey ci biir Tiwaawan ñëpp la dal moo xam ku nekk layen moo xam ku nekk Ceneba ak fu waay mën ne. Mm-hmm. kilifa diine nga kilifa diine la woon am yëg-yëg gu mat. ci ñi nga xamante ne mooy tarixatul tijaan rawatina tamit euh, beneen tiis bi nga xam ne dab nañu tey muy Mamadou Yatassay doonul nag ku ñu miin mhm. doonul ku ñu xam ne acteur politique la nekk ci mouvement social rawatina témoignage yi nga xam ne moom la Cheikh Oumar wax jullit lii rek la am mhm. bis boo dëddoo na am kenn ku yëkkati kaddu ci sa jëfin gu rafet kon kàddu yi mu yëkkati wane na ni ñun mën nañoo am yàqin ni nit ku baax la woon. Mhm. parce que seede rek mooy cislaayu jullit. donc ñu di ko ñaanal yàlla di ko jaali tamit mbokkam di ko jaali classe politique bi yépp moo xam euh, ku nekk ci opposition moo xam ku nekk ci parti au bis bi moom amul opposition amul parti au mhm. pouvoir ah. bis bi moom benn bis la ñépp a ciy yem kon ñu di ko jaale ñépp di ko jaale njabootam di leen ñaanal yàlla fi leen seen bàyyi féete woon yàlla na fa yàlla teg loxoom. yàlla li mu fi bàyyi comme héritage social moral et spirituel yàlla na leen yàlla may mateef guñ ko àggalee ci seen sago. ñu di ko jaalee Sénégal gi yépp ndaxte acteur politique la woon bëggoon def pour luy doxal Sénégal. Mhm. kooku bu wàññeekoo mën nañu taxaw jaale ko ñu koy jaale ñépp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, ñu ngi lay ziar. waaw nday aram euh, kii di fat maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di ziar te di nuyu également ñi ma toogal fii ci plateau diggu penc bi. Mm-hmm. di xaarandi rek Pa Moussa l'homme aux douze mille plateaux par jour xam naa il va nous rejoindre léegi tey incha allah. mu ci yoon bi waaw. mis <laughs> nañ ko ci mbopp quoi. <laughs> di vraiment. jaale umma islami bi yëpp mais particulièrement suma sëriñ suma xarit suma wasila suma référence nit boo xamante ni awma ci moom sago muy sëñ Habib Sy mm-hmm. euh, bërki démb rek daanaka duñu toog une ci semaine bi ñaari yoon te déggante wuñu ci mu nekk koo xamante ni Sénégal yépp gis nañ taxawaay bi mu am ci réew mi maanaam bu ñu nammul baayam wala bu ñu jooyul baayam torop torop sëñ Habib bokk na ci doomu maa Abdou yi nga xamante ni waral na ko sëñ bi maa ngi lay jaale sa rakk ji fi jóge di sëñ usmaan te di sant yàlla bu baax ci dem gi mu dem ndax dem gu gën la dem gu rafet la demuk yërmande la parce que ci fukki fan yu jiitu ci weeru koor la teg mhm. ñu ci am yaakaar rek yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam Mamadou Yatassay ca parrainage laa ko doon dégg ñu ne c'était un candidat à la candidature mhm. vraiment mais euh, kii li mu wax fii nii léegi Cheikh Omar tax na ma regretter deux fois sa mort je regrette sa mort naturellement parce que ku dem moom day nit ñi dinañ ko naqarlu comme tamit dinañ ki sant yàlla mais je regrette sa mort ci li nga xamante ni def na ko comme témoignage ci militantisme social quelqu'un boo xamante ni ndekete au Sénégal am nañ fi vraiment des personnes yoo xamante ni ñu ngi yëngal yëf yi di yëngu ñuy gis muy dox ndekete kenn du leen dégg te ñooma mm-hmm. donc kon li ñu mën a wax ci moom mooy c'était vraiment une personne humble et effacée donc yàlla na ko yàlla xare àldina moom it rafet nañu njortu ci moom ginnaaw témoignage témoignage bi kiy def ci jaamu yàlla parce que jaamu yàlla moom mënut a weesu di taxawu doomu aadama yi rafetaat nañ ci njort mooy yàlla ku mu bëgg a texeel rek daf ñuy wan ay signal ci dem gi mu dem moom tam période bi mu dem ak ni mu demee yàlla yàlla moom tam xare ko ca aljana yi gën a kawe allahumma amin jaajëf jërëjëf euh, kilifa euh, wax nga ko euh, pamusa Moussa dinañu dab si <laughs> si mooy star bi ak ak ak nijaayu Abbas nijaayu Aliou nijaayu Abbas sa nijaay moom dama ragal dafa réer. non moom day boucler. parce que moom koñ bi saa yu ñëwee laajte la moom bu pare émission fan laa gaare.